maa ngi sàkku képp koo xam ni yaa ngi dégg sama kàddu gi nga toog lu déglu ko bu baax ndax ay kàddu leeral la ku ci nekk mën na see am ay jàngat yu bëri laata may tàmbali waxtaan wi maa ngi leen di ñaan ngeen abonné bu dee gan nga ci page bi bés cloche notification ndax mboole vidéo bu ñu dugal nga mën see jot ci lu gaaw ku ci nekk dégg na coow li nga xam ni doxoon na ci diggante Adamo ak kii di Mandiaye Seck niki tey waajuram bu jigéen génnoon doon amal interview foofee ca improt ginnaaw bi mu defee interview ba pare nag kii di Adamo dafa génnaat di leeral ne moom loole laalewu si lu dul ay audio lañu ko partagé moom mu jël audio yooyu noonu daal di koy partagé waat dinaa si ñëw mais ñi nga xam ne ñooy commentaire naan yaayu Mandiaye Seck warul génn warul woon wax mais nit ku nekk xam na li ci ak ñu réer diggante doom ak waajur euh, ségam mala day am doom sax nga jël ko muy jooy topp sa ginnaaw sàkkamtura nit koo xam ne tey jii mu ngi ànd ak xelam doomam di dund di nekk ci ay jafe-jafe mu ne du ko suturaal wala du ko soutenir mbokk yi am na loo xamante ne foog ñu ci ànd ak sunu xel bu ñu topp ne dañoo bëgg nit ki ba tax duñ ko wax dëgg wala nangam pour ñi dugg ci commentaire Adamo di ci wax ay wax yu négatif jëmale ko ci waajuru Mandiaye Seck lay wax maire bi li mu def tey jii bu doon keneen koo xam ne moom lañ ko def doomam ñaanuma ko yàlla mais ni mu réagiré noonu lay waaju di réagiré waxi teggil la fi wax waxu fi benn wax boo xamante ni wax bu ñàkk fay la lu dul wax bu jub ak wax bu correct dafa wax bay jooy mbokk yi nañu suuraale bu baax a baax a baax tey jii lii daf lay wa jàngat lu bëri que àddina boo fi fi nekkee yàq deru nit amul sens tey jii nii yaay ji li nga xamante ne génn na bu doon doomam deful dara du génn tey jiin li tax mu génn mooy dañoo tooñ doomam mu jàpp ni liñ ko def daf koo metti moo tax mu génn di wax jàpp na ni bu génnee dina réglé wu moo tax mu génn kon buñ jël ay wax yu di ko wax nañu xool tey kenn ku ci nekk bu doon moom nga maa ngi bu fekkee li ma wax dafa déranger kenn lépp lu fi jub ngeen xam ne ci ndimbal suñu borom la di leen wax ngeen wéy di abonné ak a partage suñu ay vidéo jaa jëf